match bi noo ko <coughs> match bi nag moom ay stress yu bëri la parce que première balle bi ñu perte déjà la première le premier penalty qu'on a raté eh bien nous a nous a nous a nous complètement déstabilisé et donc c'est avec beaucoup de stress alors quand pour moi je disais que c'était foutu voilà mais par la grâce de Dieu par le talent de nos joueurs leur maîtrise du ballon, je pense que, eh bien, ils l'endroit de Sadio Mané. Sadio Mané qui rate le penalty, qui devient le héros de cette finale de Coupe d'Afrique des Nations. Sadio est un seigneur. du football. Eh bien, je crois qu'il a battu aujourd'hui son coéquipier Salah, qui est un grand joueur, on l'a vu tout au long de ce, match. Mais bravo à Sadio, à toute son équipe. toute son équipe, au coach, à l'encadrement, à la fédération, aux supporters, au peuple, à l'État aussi, qui a beaucoup misé sur l'équipe. Et, au président Macky Sall Et donc, c'est pour dire que c'est la victoire du peuple oh. sénégalais. Merci beaucoup. C'est tout un programme qui est chamboulé c'est tout un programme qui est chamboulé. Vous étiez dans une. Là, là, malheureusement, tout le programme est chamboulé. Vous savez, je devais continuer demain matin. sur Moroni, donc aux Comores. Mais j'avais déjà dit au président Azali que vous savez, si je gagne la coupe, je obligé de retourner sur Dakar accueillir les Lions. Il m'a dit d'ailleurs, je avant de revenir immédiatement. Donc je serai à Dakar juste avant les Lions. Et quand je vais les accueillir avec le peuple sénégalais, et eh bien je continuerai mes tâches. lan lan ngay wax peuple sénégalais bi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan jamono ji en direct. peuple xanaa di ko ñaanal wax ñëpp a taxaw ñëpp a jàpp ñëpp ñaan ñëpp a dugal seen loxo ndax lu mosul am bu amee ah day nekk mbégte te nag guléet Sénégal am Coupe d'Afrique des Nations guléet kon loolu bu amee wax dëgg yàlla dañ si bég kon nañu sant yàlla sant xale yi nga xam ne ñoo ñu may ndam lii nga xam ne tey àdduna yëpp a ko yëg àdduna bi yëpp a ko seetaan fi mu nekk maa ngi recevoir ay appel chef d'état yoo xam ne sax mënu woon xalaat ne ñu ngi seetaan ñu sori Afrique ak ñu nekk Afrique président Ouattara léegi la moo ñu wane mbégteem ak George Weah ak ñeneen ak ñeneen Mballo bu bu Guinée Baro ñëpp ñëpp ñoo woote même président bu Éthiopie ah, léegi la woote ak premier ministre am kon euh, ndamul Sénégal la waaye ndamul àdduna bi kon nag jërëjëf jërëjëf peuple sénégalais nañu ñu teerul lion yi si dal mais teeru leen tatagal leen et eh bien teral leen te bu ci yàlla ànd daañu leen teral